donc bu ñu tegee seen këyit fële daal ne nous parlons présent culture ak euh, Aïssatou Paye Fall <laughs> donc Aïssatou yeewu culture euh, dañuy njëkk a waxtaanee euh, livre Mansour Gueye mu jagleel ko El Hadj Djili Mbaye bërki démb lañ doon amal présentation bi c'était le samedi d'ailleurs samedi bi passé. ah je pensais que tu faisais toujours ton journal. Ah, <laughs> non non non <laughs> baal naa la baal naa la baal naa la baal naa la. waaw samedi samedi passé Baye Cheikh comme ni nga ko waxee si lañ doon euh, def euh, la doon def cérémonie de dédicace bi ak présentation livre bi nga xamante ne euh, moom doomu Louga la bi dëkk ci beneen doomu Louga boo xamante ne dafa def jaloore bu mag. Hmm. muy El Hadj Djili Mbaye kon dërëm bi génnul gaal gi. waaw dërëm bi génnul gaal gi Baye léegi El Hadj Djili Mbaye la saga d'un sage milliardaire ñu teewlu li ma ci bind li ma ci def hmm. ah après ñu dellu si wàcc ci plateau li ñu nettali ci moom ci ay definam lu baax bëri na El Hadj mbay Mbaye ñu bëri def ay témoignage waaye témoignage bi nga xamante ne tey dañ siy taxaw ab téere la bu benn ndaw boo xamante ne moom itam Louga la jóge xaatim muy Mansour ci biir téere bi nag mu wax nettali fàttali li nga xamante ne histoire la saga la bu nit ku mag doon jëfee bi mu nekkee ci kaw suuf. investir na ci réew mi bi mu amee alalam wut ko ci wane modèle ni kat nit doo nekk doomu sëriñ rek da ngaa war a ñàq mais aussi bi mu amee ba pare tamit mu fexe ba euh, doomi dëkk bi doomi Sénégal kenn ku ne bénéficié wu ci ci entreprise yi mu taxawal mais aussi ci ndimbal ci ndimbal yi nga xam ne daan na ko def ak ci taxawaay bi mu amoon ci diine ji taxawaay bi mu amoon ci euh, euh, diplomatie bi. ñi wax ci bokk na ci ñi nga xamante ne jot nañu côtoyer ko naam sax mu nekk benn bés wala ay waxtu. daf ma ne ma ma teg ko ci lalam ne ma ñaan ci sa soxla ma ñaan ci suma soxla xëy na boobu ba tey jàmm ji ma yàlla may. mu jël kàddu gi tënk ko ci lu gàtt wax ni mu kontaane ci liggéey bi nga xamante ne ndaw bi bile def na ko. nekk tey Louga mun nañu am na ay infrastructure yoo xamante ne mun nañ ko joxoñi ay baaxam kenn moo ko waxal muy doomu Louga bi di El Hadj Djily Mbaye mu marqué nag ci empreinte am histoire u Ñombour nit ki li mel nag ñu wax ko jël jébbal ko jox ko exemple génération actuelle yi ak génération yi nga xam ñoom ñoo nar a ñëwaat ki ko wax nag du kenn ku dul professeur historien Iba Der moom nag mu préfacé téere bile voilà livre la bu am solo boo xamante ni mérité na euh, sax ñu jox ko euh, xale yi pour ñu xam euh, kan mooy exactement Djily Mbaye mm. nekkoon kilifa bàyyi fi itam njàngat moo xamee ni mën na jëriñ képp ku am jom et puis ñu gis ci doomam ju baax jooju maam Cheikh mbay mi ñu dénk bisu ñaan yooyu yëpp da nga may may ma wax ci wala ma mm-hmm. bàyyi la nga commenté ci te delloo waat ma kàddu gi balaa ngay dem ci beneen livre bàyyi jar naa taxaw wuy ma mm-hmm. bàyyi dama ne tekk bàyyi leen de. waaw oh. kii de ah. waxal ba pare. non non non c'est c'est juste que le livre est intéressant et puis ça parle de euh, l'histoire de cet homme. waaw euh, li nga wax loolu la moo tax euh, Mansour Gueye mm. di sëtu Abassal ne mu taxaw si. Mm. ndax ndaw la bi sëñ ji di génn àdduna bi nga amoon ñetti at. Mm-hmm. donc pour mu def liggéey bi nee na dafa def dafa dem wër ñi nga xamante ne ñoo ko jege woon. Mm-hmm. ñoo ko xam ñu def ay témoignages ah. donc. mu mën recouper loolu yëpp def ko ci téere bi comme ni nga ko waxee faaw ñu bind ko euh, ngir nit ñi jël ci exemple surtout ndaw ñi ndax euh, ni mu du parcours am ni mu ko defee ci gëm boppam euh, gëm boppam ci liggéey bi ba mu may ko li ko may mhm. ak diine et comme ni ko ndaw bi waxee ci ci téere bi nee na am am du tax nga bañ jaamu yàlla mhm. du tax nga du la bañ a tax a humble mhm. bañ tax a nekk nit koo xamante ne da nga sociable parce que ni ma ko déggee foofu bi ñu doon wax dañ ne euh, tey boo ko gisoon mu dugg fii di dox doo doo xalaat ne moom la naam même si solo bi ndax oyofaayam oyof loolu waaye diis gann ci Oh. sànni ñaari baat ci sànni ñaari baat comme ni nga ko waxee woon professeur Iba Der Thiam teewoon na fa euh, professeur Massamba Gueye tamit teewoon na fa hmm. ñoom ñëpp ku nekk jox sa joxe sa kaddu ak nga xamante ne Ah, waa buuba waaw moo ma jox téere bi sax ah, ne ma waaw moo ma ko jox ndax mam Cheikh Mbaye xaritam la waaw léegi euh, donc voilà euh, on a parlé de tout ça léegi ñu taxaw tamit ci beneen mbir boo xamante ne euh, mooy jaar-jaaram on va parler un peu de son parcours ni mu dooree ci wàllum commerce ñu ne di jaay guro di jaay banaan amul loo xamante ne ginaar amul loo ay ginaar Oh, un peu de parce que loolu rek dafay wone si loolu rek dafay wone mag ñi <laughs> waaw non mag ñi si c'est vrai Pape Cheikh ñoolu dafay wone mag ñi nu ñu def ba am am na ñoom ñu suuf leen doon jaay dégg nañ fi tamit jàllu picc ay picc la doon jaay ah oui ah donc euh, voilà donc ku ci nekk am na fi nga tàmbale loolu moom mooy euh, bul sori Babacar Ngom ok ay nen la doon jaay donc gis nga ko ah, ku ci nekk tey am nga foote déparé fu ndaw l' essentiel mooy bu ko xeeb na barkeel. lu barke moom. macha allah moo jara ñaan. Eh, te defe naa ne boo ko ci jaaralee yoon rek. incha allah yàlla na leen ci may ndam surtout ngay ñaan loo xamante ne doomu aadama yi xat nañ ci. Mm. ndax teraanga goo xam ne ay modèle modèle la moom bàyyi ji. donc modèle économique. waa université miin ko waa yàgg na leen may ay oto surtout hôpitaux yi ay ambulance et vraiment moom marqué na au moins jamonoom ci def yu baax. donc modèle ci ci wàllu yëpp économique modèle social modèle ci wàllum diine donc bi ñuy bi ñuy def cérémonie bi dafa am euh, kii bi di Demba Sissoko dafa jóg il a fait un témoignage mu ne moom bu jàngee ba egg fu mu egg ba nekk journaliste ba di bind ba ñu ràññee ko. Mm. nee na yàlla ak euh, jëmm ji la. waaw donc nee na dafa tabax foofu lycée. parce que ñi am à partir de 85 li nit ñi commencé defe naa di am bac. parce que si la lycée bi am euh, foofu la ci Tambacounda. mu tax nag ay ndaw yu bëri jàng donc y a eu plein ci li mu def ci wàllum euh, école. tabax euh, euh, ay jàkk jàppale doomu aadama ci ci ci alalam donc daal c'est comme si c'était une mission qu'il avait à faire sur terre mm. donc euh, ñu wàcce ko mu def ko ci anam ñu mu ñu mu gën a rafetee ba tax nag ndaw si di Mansour Gueye bind téere bi ngir mu nekk exemple exemple pour les pour les pour jeunes et comme ni ñu ko fa waxee woon peut-être que du ñu mën lire ou peut-être que ñëpp amuñu bourse boo xamante ne dinañ jënd téere donc on ils ont fait une proposition comme quoi ku ko mën ku si mën jàpp ñu def ko film mm-hmm. comme ni ko Ousmane Sembène doon waxee nee na bu ñu bindee ñu nekk ne ñiy liir ñu defee film def ko si suñu kàllaama ñu bëri dinañ si jot et pour et ça je pense que euh, il faut que ñu pour que ndaw ñi si on a des des des messages à faire véhiculer mm. ah euh, bu dee way bi jàllul peut-être que les gens ne vont pas s'attarder sur sur les messages bu dee téere bi jàllul du ñëpp ay liir wala ñëpp ab temps wu liir wala ñëpp am xaalis boo xamante ne dañ ko jëndee téere qu'on fasse des films ñu gën jàppale cinéastes yi et loolu yëpp day day participer si si si si si si si koom-koomu réew mm. euh, xam-xam ak lépp donc voilà euh, El Hadj Djily Mbaye la saga d'un sage milliardaire ku si mën jàpp rek ñu def ko ab film pour ñëpp mën si jot ñu wasaare film biographique c'est très important surtout nit yoo xamante ne comme euh, El Hadj Djily Mbaye demoon visiter euh, château bi nekk euh, Louga soo demee di visiter quand on te raconte son histoire tu es ébahi man par la personne par œuvre yi nga xamante ne voilà maa ngi yow ñëw donc œuvre yi nga xamante ne def na ko ci luga waa Louga dañ lay expliquer comment il développait la ville et que xamul ndax daf fi teel a jóge mais tu vois la personne tu te dis mais genre nit yi fan lañ jógee nan lañ def ba def lii yàlla yàlla lan la leen may nii donc film biographique ce serait ce serait extraordinaire parce que dafa am nit yoo xamante ne exemple lañ ñu war a servir que ce soit ñun xale yi di ñëw parce que dafa lay wan ni dara jombul kenn ku ci nekk mun nga mun nga jógee jógee un egg from zero franchement nañ ko def film film yi tout le temps on nous montre des milliardaires américains des milliardaires français mm-hmm. ah ñun nag on doit nous montrer nos héros ñi suñu milliardaires yi ñu ñu filmer ñu wane euh, def un mm-hmm. bon film mm-hmm. tey booy y a d'excellents euh, ah, ay booy cinéastes yu nekk fii Sénégal mën nañu jël œuvre mel nii def ay film court métrage wala long métrage ñoo xool euh, ñu bi long ñu def te boobaa ils vont se rendre compte que Sénégal bëri na fi ay mag ñoo xamante ne yàlla baaxal na leen te ñu ngi ci dëkk bi seulement tubaab yi euh, ay référence dañu mais booy xool tey li mu tabax euh, tey euh, foofu ci Louga su pour la petite parenthèse boo wëree àdduna ci wàllu palais xëj na ñaar nga ciy gis wala wala du ñett de parce que loolu boo ko xoolee mënoon na ko tabax France wala mu tabax ko beneen dëkk mais Sénégal la ko tabax donc loolu rek déjà fierté la mu am fii patrimoine la et tamit comme ni ñuy wax tamit euh, gouvernement bi aussi tamit daal di ci jàpp dugal ci loxoom ñu daal di def film yi mel nii pour que xale yi mën ko seetaan ñoom it mu yokk leen jom. d'accord donc merci merci temps de parole. <laughs> comme ni ñuy joxe politiciens yi temps de parole. war nañu instaurer temps de parole. waxuma dëgg. wallaay ah. ah, ok. <laughs> Donc c'est un livre qui est sorti depuis le week-end euh, aux éditions... Africana. Africa, euh, voilà, édition Africana, Africa, ça s'appelle. Africana, édition Africana. donc sur Djily Mbaye ak euh, le ak jeune bi di Mansour Gaye en tout cas ñu ngi koy encouragé ci ndokkeel njabootu Baye Djily mbay yëpp bokk na ci maam Cheikh mbay ak njabootam ñu ngi koy ziar di ñaanal di ñaan yàlla yàggal taxawaayam. amiin y a aussi un autre livre boo ñu indil. waaw laa ko jot ah euh, donc c'est un monsieur qui s'appelle docteur Cissé Kane moo ko bind euh, si l'œuvre et le parcours la vie de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ah donc euh, macha allah nee na ko bind bind bu bu leer xam nga bind ah, ah macha allah sa donc kon je vais t'offrir ça comme ça voilà donc mu nekk lii boo xam daf ko bind si si pour que nit ñi xam ah soo xam te euh, en général nit ñi dañ koy bind mais bind bi pour nit ñi yenn nit ñi comprendre ko day metti mm. genre les non initiés comme man mm. ah voilà boo ko liiree di nga mën am lu bëri loo si xam et bu dafa am foo bëgg dem tamit nank-nank mm. je pense que c'est la c'est la porte ouverte pour egg fi nga bëgg egg voilà. voilà. donc euh, euh, le livre c'est Jawahir Hirul Mahani les joyaux des sens et l'accès aux aspirations en les flux spirituels du maître. Mm. voilà voilà. dernier livre. Euh, non c'est l'agenda culturel maintenant c'est l'agenda culturel parce que je pensais que tu parles tu nous présentes trois livres. non non non deux livres, non non ak d'abord on parle de. Euh, café littéraire euh, donc suba à 17h30 ak benn téere bu tudd longue nuit mm. luñ siy wax mooy euh, euh, jabaru émigré yi ni ñuy ni ñuy dundee seen seen seen nekkin bu seen jëkkër yi yàggee yàggee bitim réew la solitude des épouses des immigrés mm-hmm. donc jeudi 31 janvier am na benn festival bu ñu wax festival Afrique du Rire bu nar am théâtre national Daniel Sorano bu 20h30 jotee mm-hmm. et y le festival de l'Inde bu ñu wax Tiranga bu nar a am 1er février tamit sa théâtre national Daniel Sorano c'est les trois événements que j'ai choisi pour vous Baïcha merci à vous merci pour toutes ces infos culture. et puis mm. ñu ngi xaar émission culturelle bu mag bi ah comme ça. Mm. Euh, dinañu gën a développer. dafa nar a am euh, émission rendez-vous bah oui. je fais ça avec toi xanaa man ak yow la. après les élections on fera ça. ma tooy ma. nañu bàyyi ba voté ba pare. waaw yàlla bu yàlla bu si cët dugg. ah bàyyi ba sama président ñebe rek. yàlla bu si cët nekk président xam naa ko ni. xam nga ah, mais du ma ko wax. Ah, yàlla war na ma ko jaxraat. dama leen nëbbu de. dama leen nëbbu de. boobu dama leen di nëbbu de. man léegi tey ma ko wax dama dem wuti foofu liggéeyu chargé de camp. <laughs> voilà donc merci Aïssatou Paye Fall 10h16 mooy euh, doog a jot tey c'est l'anniversaire de Kumba Gawlo. Ah. ah la diva. Eh, ni ngeen waane. yow daal la ñuy wax démb bu ñëwaat rek. yéen ay nit yu seytaane gi boo gisee dama ah, eh, ah, eh, ah dara safu leen.